tey ci politique bi Ousmane Sonko kenn la ci candidat yi euh, moom fi nekk nii woote na bu yàggul dara débat public boo xamante ni mi ngi ci woo képp koo xamante ni tamit mën nga def lu ni mel nga def ko débat boo xam ne danga koy def euh, si si public bi Ousmane Sonko def ndaje bi dajale mbooloo mu takku yéen wax mouvance présidentielle amul lu ngeen ci jàngante. d'abord man dama koy rafetlu dama koy rafetlu dama koy encourager bu baax. li tax ma di ko encore benn mooy mbokk la ci man mbokk la parce que yaayam waa xombal ko man cër boobu it la ma jox parce que fu ma gis dama jox ñaar loxo ni ma tonton jàppale ko parce que encouragé ko parce que man dama bëgg ndaw buy jël ndaw luy jël responsabilité am donte nag mun naa bañ a d'accord ak yow parce que am na yu bëree bëri bëri yoo xam du ma ca d'accord d'accord ma ci ak moom mais au moins le principe jël na responsabilité am engagé wu politiquement pour servir réewam donc dama engagé dama koy encouragé ci loolu euh, ni mu def it loolul ban laay séntu ci kuy candidat nga def ko nga ne kat réew mi nii laa ko gisee lii ak lii laa ci bëgg a def ëllëg ak si biir Sénégal yi déglu la atte bu ñu attee rek affaire bi dina mais loolu su amul xaste mooy am waxante lu ñaaw saagante loolu du politique politique programme la ay projet la projet de société la ay xalaat la yooyu teg sénégalais yi càmbar parce que sénégalais ñooy fal en définitive donc rafetlu naa bu baax loolu nga xam ni def na ko même su fekkee ni dans le fond bon xëy na am na ci bëree bëri yoo nga xam ni ànduma ci ak moom mais au moins sur principe non bari na bari na parce que boo càmbaree li mu li mu wax xay na euh, temps bi du ñu may pour ñu pour ñu pour ñu toj ko yëpp mais boo ko càmbaree euh, bon euh, xam nga critique moom dafa yomb benn nit daf ma laaj ni ma li ma jaaxal mooy bu ma jëlee kaawu euh, fond politique mu ni ma dama gis ni ñu bari bu ñu nekkee candidat dañu ñaan bu ma faloo damay dindi fond politique yi te bu ñu faloo duñ ko dindi ma ne ko parce que da ngay nekk ca biti doo xam lu xew ca biir mais bu ñëw ba tiim ko xam lu ko waral ba jox la exemple tey bu fekkoon ni euh, am na jëye ju am ci réew mi wala juy waaj a am nga gis koo nga xam ni gis na loolu maanaam gis nga ni pour jox exemple terre à terre ay terroristes ñu ñuy attaqué yow nga gis ne ay terroristes ñu ñuy attaqué loolu kat nangam moo ko war a fànq loolu pour ñu fanq ko il faut nga wut nangam ci xaalis pour régler ko loolu kenn du ko bind ci budget président day génn ci fond politique am régler ko. ah. non non non du ci jaar da ngay jël ci fond politique régler ko nga gis benn kilifa goo nga xam ni xëy na am na ci tolof tolof yu mu nekk ñu war ko faj te sutura moo ko war a def. président di jël ci fonds politique am réglé ko nga gis muy police muy armée wuy keneen soxla ngànnaay boo nga xam war nañ ko mën a jënd daar daar parce que nangam ak nangam lay jot loolu doo ko dugal ci budget doo ko jaarale fonds trésor da nga koy jël ci fonds politique réglé ko mais yooyu boo demee ba tim pouvoir nga xam ne lii lay jariñ sa gis-gis dafay changé donc bari na ci yoo nga xam ne xëy na bu ñu ko tojee danañ gis ni yii peut-être ñàkk xam moo tax mu di ko wax yenn yi bëgg a moo tax di ko wax mais encore am solo mooy dans le dans le ànd naa ci li mu def gis naa ne même Pape Diop aussi annoncé na pour def lu mel noonu Malick Gakou defe naa ne moo ko fi jëkk a def d'ailleurs ci opposant yi moom moo ko fi jëkk a def Idriss Seck aussi woote war na lu mel noonu donc loolu la ñu war a def ba bataille idée ay idée di bàyyi xastante parce que amul njariñ xam nga suñu mbokk Bruno Diatta génn na àdduna suba ñëpp fay daje. ku nuyu sa moroom fóon ko fi fóon ko fóon ko boo xëyee di ko saaga mais nit doo ko wax lu ñaaw ba pare ñëw di jaxasoo waat ak moom donc lu mel nii je pense que lu am solo maintenant jaxase askan bi ñoo xam ne ni da ngeen di nekk si débat wax dajee foofu bëri yooyu nekk benn alors que sur le terrain da di wax loo xam te ni dina mujj sax jaaxal askan loolu moo tax askan wi war a yeewu encore fois ñi nga xam ne boog dese dañoo yeewu wax naa ko temps yëpp ci média yi nañ rafetal soow bi dugge ko jabi bàyyi wax ju ñaaw bàyyi puus nit ñi ci xeex parce que dama koy wax di ko répété may dégg sama frère Mamadou Diop Decroix mbokk la xarit la muy wax ne da ngeen di nangoo dem hôpital dem kaso dem ci sëgéer maanaam nangu leen ñu tëj leen nangu leen ñu gaañ leen nangu leen ñu rey leen pour ngeen mën a changer régime loolu du wax parce que man du ma génn sama doom di ko reylu ji te du ma dem ñu di ma rey moom mi ko doon wax gis ngeen ko keroog bi ñuy voté loi bi sur le parrainage ñu wane ko assemblée mu toog ki benn ruqam teg sandisam di lekk comme ab njóobeen rek te pourtant boobu poussé nit ñi ba ñu génn ci mbedd mi di xeex loolu moo jaaduwul politique gisaguma ñu ni damay ànd ak diw ndax dafa mën a saaga gisaguma ñu ne damay ànd ak diw ndax dafa mën a xaste gisaguma damay ànd ak diw ndax dafa mën a xeex dangay ànd ak nit parce que dafa dal mais Macky Sall en vérité bokk na ci li tax sénégalais fal ko en 2012 boo leen wax ñun dafa yaru dafa dal du tontu du xuloo ainsi de loolu bokk na ci li tax sénégalais fal ko donc jàngat boobu soo ko amee kenn du la dugal ci yenn débat yi nga xam ne amaluñu njariñ li ñu amal njariñ mooy Sénégal dafa nekk ci tournant réew bu amul alal intéressé wul kenn mais réew su amee alal ñëpp da wut si ko. tey Sénégal am na pétrole am na gaz am na yeneen ak yeneen fu nekk li jaaykatu peinture jooy yi di jóge ñëw di financer ay nit au Sénégal pour ñu nekk seen i candidat pour ñu fexe ba ñu am doole mën a teg loxo ci suñu pétrole la suñu gaz bu buñ ci mënul teg loxo ci jàmm ñu teg ko loxo ci ay donc fexe ay loo nga xam bu ñu ko defee loolu ñu mën ci génn parce que man li ma gëm tey mooy fii juróomi at lu mu bari bari fu doomu Sénégal nekk ci bitim réew di nga fexe ñibbisi